auzu billahi min asheytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa àddina maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di wax nag uh, sama benn doom bu réer ñu koy wax Xaadim Mbay mi ngi dëkk kawlak yaayam mi ngi tudd Soxna Ami juuf papaam mi ngi tudd abdu Mbay di leen wax sama doom ji ku ko gis nga jàppale ma rek te yàlla tax ndax yaayam sonn na papaam sonn na war nañ du mat fukki fan ak juróom si tey kenn xamut fu mu nekk Dakar la doon jàngee Parcelles unité 14 mu dawee nag sa daara ja ba léegi kenn xamul si lu mu nekk ba muy daw mi ngi sol mbubb mu ñuul mu am ay rëdd yu xonq ma leen di ñaan képp koo xam ne ni gis nga ko nga jàppale ma rek te yàlla rek tax feeñalal ma ko ma di leen jox numéro bi 77 401 10 62 78 beneen numéro bi 113 46 21 waaw ku ko gis rek nga woote si numéro bi jàppale ma rek nag te yàlla tax leen jaajëfal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala a barakaatu